salaamaaleykum wa rahmatullah waa Ovision ñu leen di siyaar bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax di présenté ñu la bergerie Adja Fatim Gueye mu baax mi Pikine Route Niayes villa numéro 8441 téléphone bi di 76 018 95 93 77 592 44 45 waaw transitaire moom ñu leen mën a wax ci moom lu ndaw ta bari la rek muy xar la boo xamante ne xar bu yaakaaru la xaru jamono la xar bi élevage soxla la waaw mu nekk bon sëtu Picasso nekk sëtu Nations Unies nekk setu magistrat waaw fi mu laale fépp bari na yiñ jot a xam ci maamam rek la ñuy wax waaw xar la boo xamante ne daal bëgg nañ élevage bàyyi ko xel moom instant bi mi ngi toll ci 15 mois voilà mi ngi toll ci 15 mois espoir la bu ñoragul génn naa mës naa génn comme invité waaru reli bi mooy deuxième génn boo xamante ni ma maa génne sama bopp waaw mën naa ne bi mooy sama premier génn daal de première génn bi invité laa génne woon mais bii mooy génn officiel bi nga xamante ni sama engagement la élevage nag li ma duggee mooy damaa nekkoon ci àll bi yàgg naa yar avant mooy tukki quand même ndax maa doon yar sama xaru yaay sama xaru papa yi tout ça comme nit ñëpp duggee mais bi ma nekkee ci àll bi nag 2018 foire Saladam 2018 bu Galactique Gaye waaw ma doon seetaan Galactique di xool émission yi may gis Galactique mu nekk xar bu ma neex moo tax ma bëgg laadum man Sénégal moom ma demaatee faaw ma am laadum quoi yàlla dogal nag ma ñibbi si 2018 bi bi ma ñëwee. ma pourquoi pas mënumaa dugg ci élevage bi def comme ni gars yi def rek xaalis nak dugal na ma ci mom wax deug yalla voilà. waaw amour mom moy jitu mais xaalis bi tamit bokk na ci en fait dañ koy wax waaw. waaw xaalis moom parce que élevage lu tax ma wax lolu xaalis bi élevage investissement la kenn du investir 500 di dem am revenu di perte.

mais bëgg xam rek ay capacité laa ci jublu léegi nag lu ma ci fekk ma jëla ah. waaw li may tëjee daal mooy bon di sant sama gaay yi rek lu demee ni grand Mou Diagne grand El Hadj Ndiaye mi ak grand Ousmane Thiam grand Khadim Lo ñoom ñëpp sumay grand lañ maa leen sant bu baax a baax di rafetlu seen taxawaay ñëw nañ en masse di ma wax dëgg yàlla waaw wax dëgg si mamom, waaw effectivement moom ñoom ñoo may conseil ba ma egsi fii bu ma ñemee ñëw fii ñoom ñoo tax wax dëgg si yàlla voilà voilà adresse bi mi ngi nekk Pikine Route des Niayes ci wetu rond point bi numéro bi nekk 76 018 95 93 beneen bi nekk 77 592 44 55 waaw moom laal la ku fa ñëw mën nga faa am xar waaw ndax dañuy jàppale éleveur bu ndaw di jaayee seer éleveur bu mag nag wax dëgg yàlla waaw.